jàngeen jëf cher internet yu syndicalisme point net ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu saa su ne seen ànd ak ñun nees gis ñu xibaar yi xibaar yi dooree ko rek ak càmbar bi ñu càmbar rek liste électorale nag niki fukki fan ak ñeent bi nag la daal di jeex mu nekk loo xamante nag ñu bëri nag àddu nañ ci jëmale ñu si mel ni nag acteur politique yi le chargé des élections foofee ca parti Pastef di Adjuma Sow wax ne nag ab attitude bu bon a bon daal la gis ci yenn ci représentants yi nga xamante ni daal ñoo fa toogal état bu Sénégal waaye itam am ay réserve yoo xamante ni daal daal nañ ko saay teg jëm ci wàllum neutralité bi nga xamante ni gis nañ ko ci Sénat waaye itam naqarlu na bu baax a baax acte yi nga xamante ne acteur yu fare ci mouvance présidentielle dal dañ koy tekk ci jamono ji ñuy amal rek càmbar gi ñuy càmbar liste électorale yi ci boobule mbir sax kii di Moussa Sarr porte parole bi yore rek LD nag nee na ci am na ci satisfaction bu baax a baax donte nag la mu xamle moo di nag ab franc succès la ne daal révision yooyu am na ko donte nag am na ci ñenn ci ku jegi ñoo xamante ni si ñoo ngi doon yëngal ci mbir mi bu baax a baax ki nga xamante ni moo yore Sarr chargé des élections foofee ca parti bi di bokk gis-gis ne moom daal ci jamono ji faw rek ñu xaarandi ba mboolem xibaar yëpp ñu ci boobu les mbir euh, jëm ci liste électorale yi des ba tey ci wàllum politique dem foofe nag ci diwaanu Géejuwaay ca commune bu Golf Sud foofe nag xëccoo ba ci diggante Lat Diop ak Néné Fatoumata Tall nag mel na tuleeg màlle ci jamono ji nga xamante ni daal mu ngi doon jox ay subvention jëmale ko ci ay yu faree foofe ca Golf Sud Lat Diop nag daal dinay tontu euh, Néné Fatoumata waaye nag tudd yoon benn yoon tur borom ci jamono jooje nag nee na Fatoumata Tall daa doon sàkku ñu amal ay primaire ngir xool ci ñoom ñaar ana kan lañ ci war a rek ngir mu jiite candidat yi foofee ca golf sud waaye euh, nag moom dayoo gi mu am liggéey bu mu liggéey ak ni mu dundee ci wàllum politique ci commune bu golf ne daal tey la gën a dëggu ngir rek jiite commune bu golf sud boobee ndax jàpp ne daal compétence bi ko war a jiite moom yor na ko moom Lat Diop waaye tam gis na ne daal am na ay at yu bëri yoo xamante ni daal tegu na ci kaw askan wi su ko defee daana mun rek jiite li nga xamante ni si moo di euh, commune euh, bu golf euh, sud boobee ci naka noonu itam mu ngi woo rek ay partisans ñu dal ànd ak dal waaye nag bañ a am benn xirti xirti ci mbir mi waaye nag moom tuddut nee na Fatoumata Tall waaye xam na ne ku wéet xam na ki nga mën di ay kàddu yoo xamante ni moom Lat Diop moo ko daal di yëkkati jëmale ko ci euh, naataangoom boobee di euh, madame le ministre faatu euh, Fatoumata Tall dem ba ca kaw Kaolack tey ji nag xam ngeen ne moom la ñuy amal la ñuy duppee CRD loolee nag la ko tax a jóg moo di rek ñu waajal mawludi bi nga xamante ni ñoo ngi koy amal foofee ci diwaanu Medina Baye loolee nag acteurs yu bëri daanu fa teew ngir rek xool nees war a def rek boo taxawu boobulee gàmmu te du am ak benn jafe-jafe comme niñ ko baaxoo defee at mu jot ci jamono joojee nag ñoom ñoo nga ca waxtaan ya na pexe fexe rek ba gàmmu gi am ci euh, anam boo xamante ni benn jafe-jafe du am wàllum ñàkkum ndox ak courant ak yeneen wàllum paj bi tamit euh, daanu ko fa waxtaane foofee ca diwaanu Medina Baye ci jamono ji nag euh, ñoom ñooñ kalifa yeeg ñoom seen nitu diine yi nekk foofee ca Medina Baye ak kilifa yu département bu Kaolack ñoo nga ca waxtaan ba lako ko sooke rek moo di nas ay pexe ngir rek gàmmook ren ji bañ am benn jafe-jafe xibaar yooyu itam daañu si dikkaat ci nu mu gën a yaatoo Sonko ngir rek xam leen ana lan moo ruusee ci boobu boobule CRD foofee ca diwaanu Kaolack. addu jëmale ci tolluwaayu mbas mi niki tey ji nag la ñu gis ñu def ci test toll na ci deux mille soixante-quatorze tests vingt six cas positifs quatre cent dix ñoo nekk ay patients guéris benn cas contact vingt cinq cas communautaire dix neuf cas grave tey ji nag nee nañu daal benn doomu aadama daal la ñu gis mu faatu niki démb ci talaata ji ci wopp boobee di Covid 19 Sénégal nag ba mu dooree mbir mi ak léegi lu toll ak mille huit cent trente huit décès ñoo ci daal di am Sénégal laale ak mbas mi boo tax askan wi toll ci 73 539 ñu wopp yi wopp yi covid 19 ci jamono ji nag lu toll ak 3594 cas la ñuy tere ci ci lal l'hôpital yi 68 106 ñoo nekk ñi nga xamante ni jot nañoo wér ba ñibbi seenu kër mu nekk tolluwaayu mbas mi ni ko jii ci réew ma euh, Sénégal di xaatim boo xamante ni moo ngi jogee ci waa ministère de la santé et de l'action sociale ñu dem foofee diwaanu Matam lu yéeme yéeme nag moo fa dal dee gannaaw bi nga xamante ni daal réer na lu toll ko fukki fan ak ñaar moom Abdou Julde Jaldo moomee nag ñu war ko ba sonn ndekate daal dafa faatu foofee ca dex ba niki démb lañ gis ab néewam ca euh, dex boobee nag mu nekk koo xamante ni amoon na fanweeri at dafa lapp ci euh, dexub euh, réewoyal boobee nekk ca diwaanu Matam di ab dëkk boo xamante ni si mu ngi lëngoo ak réew ma Mauritanie di fàtte nag dafa jóge woon dëkkam ngir dem am match amical boo xamante ni si waroon na ko jongante ji waaye nag moom mujjee des ci ndox mi niki démb daal lañu gis ab néewam foofee nag ca tefes bu boobule dex nag sapeur pompier nag gannaaw ba ñu leen ko yëgee ñoom nag ñëw nañu ci bërëb ba ngir def constat bi gannaaw si nag ci la ñu daal jël ab néewam daal di koy euh, yóbbu ngir rek amal ci li nga xamante ni si moo ca war bu ñu sukkandikoo suñu naataango yu fare ci syndicalisme point net nee na daal bàyyi na ci ginnaawam ab soxna soo xamante ni si dafa wanu lor ak ñaari tu tànk kenn ki di ab xale bu jigéen bu am ñaari at ak benn doom boo xamante ni si bu góor la moom ak seenu ndey rek la daal dee bàyyi ginnaaw ab enquête nag daanu euh, gendarmerie daal dina ko si ubbi ngir rek leeral ana li waral boobule incident xewee foofe ca diwaanu Matam jeexale ak wàllum tàggat yaram afro basket ji euh, ñeel wàllum soxna yi nag ca atum 2021 jàppale nag euh, gayndeeku Sénégal nag démb nag yegg nañ foofee ca Cameroun ca Yaoundé gannaaw bi nga xamante ni si nag ñoo ngi waajal boobule jongante jot nañu seenu raaya bo dem nag ngir xeex mun a jotee ci boobu boobule raaya foofee ca Cameroun ak Sénégal nag fas yéene see teew bu baax a baax ay jigéenam ci afro basket 2021 di amee foofee ca diwaanu Cameroun yooyu tam daan ci dikkaat yi mu gën a yaatoo bu baax a baax ci wàllum xibaar mbokk yi jaa jëf lii la ñu amoon yéen a yeggee leen ko ci xibaar di jaajëfal képp ku ci jàpp ba mu daal dee yemb bu baax a baax lu mooy loolu itam ñu bàyyi leen ngeen woy ak suñuy programme fii boobu nag ñu leen di dig daje ëllëg jàmm ci beneen jotaayu xibaar jaa ngeen jëf